7 octobre en ville à Méréno pour le Baye Fall 13 octobre diggante Mbaye Tine 2 ak Xeeru Góor numéro 2 ville le 30 Ndiaye production moo ñëw diggante Kalmu Ndour ak xale bi ñu wax Caatu Waalo loolu tamit dama mel ni kon moom Ndiaye Fall ba noppi ni dara lu dem donc tey ngeen fi lay des Baye Fall dañuy naan. Baabe baabe baabe. waaw. léegi jàmm waaw waaw kii toog may kat ji maas laa xool maas. maas a ngi di toog. maas yaa ngi rey sa bopp. ndeysaan. eh naa la woo après. dañ la woo. arbitre bi la combat bi. waaw. Baabe. am mbégte ko Baabe. diggante ki nga xamante ne nii ah eh, ah. Eh, Dallo ak carrière de. ndeysaan carrière dégracé na Bakar. Dallo carrière. ba door ba door daa dab ba door daa dab attention carrière ak Dallo ay laa xëy laa ilaaha illallah lii lu mu doon lii doon ndeysaan lii lu mu doon yee bi combat carrière may ko mu nooy sot délibéré ndeysaan absina combat ba carrière 2 ak dalu carrière de daanu attention dóor na mu daanu laa ilaaha illallah carrière dóor na mu daanu carrière dóor na mu daanu carrière dóor na daal mu daanu